ndax am na ñu xel bu mën a defar dëkk bi am na ñu xalaat bu mën a defar dëkk bi te am na nañu ambition pour dëkk bi nga xam ne moom lañu ñu bokk loolu nag bu ñu nekkee ci yoon boobu gis sunu jigéen ñi di gunge wax dëgg yàlla dañuy ñeme sant naa leen bu baax a baax a baax di ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy solo si mooy defar dëkk bi dama koy faral di wax ñi nga xam ne ñoo ñu jiite fi mu toll nii amuñu ambition defar ndax bu ñu amoon ambition defar dëkk bii du toll fi mu toll dama leen di wax benn mbir rekk bu ngàtt muy làmp mbedd yi ñuy wax benn kilomètre bi pour nga defar ko ñetti million rek la laaj ben kilomètre teg na fi yëpp ben kilomètre teg na fi yëpp dañ leen di wax ne élection yi de le 23 la le 23 janvier ci mois de février la ñuy installé maire bu yàlla defee ñu egg fa mois de juillet lañ leen may loolu defe naa ci juróom benn weer lay toll problème lamp làmp mbedd kenn dootu ko waxati dañuy jàpp mbir mu am solo mooy lii nga xam ne loolu moom la ñuy xëccoo du sama poche du poche ma Samba du poche ma Demba service public la mooy nit ñi ñoo dajale seen dërëm nit ñi ñoo dajale seen tànk nit ñi ñoo dajale seen xam-xam jox ko benn nit pour mu doxalal leen kooku nag dafa war a nekk seen jàmm lépp loo xam ne moom lañuy bëgg ci suqali gox bi ñu mën koo def ambition bobu nak am nañ ko té fas nañ ko doxal fii nga xamné moy gox bi ngeen nek continuer leen mobilisation bobu ba jour ba nga xamné moy le 23 janvier ñu voté bulletin bi nga xam ne lañ leen won légui moy bulletin bu vert am étoile rouge. jigéenu Malika am nañu fulla am nañu fayda am nañu ambition bëgg nañu liggéey waaye accompagnement moo leen manqué loolu nag. ñun de dinañ ci def suñu kéem laay kàttan bu yàlla defee ñu falu ci mairie bi ba lépp loo xam ne moo leen manqué woon ci côté boobu ngeen mën koo am.